maintenant nag Macky Sall moom mi ngi jouer le jeu d'écarter Ousmane Sonko instant bi nii tànn tànnal na usman Sonko son plancé C. xam nga démb yëngu dafa toog fi wax lu am solo dafa la ne dañu war a moytu ñaar ñii ci élection yi mooy Boun Abdallah ak Déthié Fall. Mm-hmm. Boun Abdallah c'est le candidat de cœur de Macky ok waaw Déthié pour ma jox respect la sama grand frère la mais c'est le can c'est le plan C de Pastef préparé par le régime de Macky Sall. comprends pas. Macky dafa tànn Ousmane Sonko son plan C. non je ne comprends pas. mais c'est le plan C. xam nga Yérim Yérim su toogee fii di wax waxul opinion waxul analyse waxul avis. Hmm. information yi mu jot kese wax. non mais mais c'est la vérité lan nga bëgg wax en disant que. Déthié Fall c'est le plan C. maanaam Déthié Fall lañ nar a sànni l'électorat de Sonko pour gëmloo leen ne au cas su Sonko demulee. mais ñan ñooy sànni mais est-ce que Macky Sall mën na sànni l'électorat de Sonko may mën a état dafa am état day day théâtralisé man xam naa nu état de doxee. mais loolu mën na ko def sans l'avis de Pastef. <laughs> comprendre de. mën na ko sax def sans l'avis de de Déthié Fall. c'est-à-dire. c'est-à-dire day victimiser wu da ngay jël nit victimiser ko. di koj ay kiiwam di jël ay oto di ko teg ci ay siège am di ko victimiser rek nday mbi gi moom nga tënk ko rek Ousmane Sonko nga tëgg fële et tout. ah mu yow da nga jàpp ne dañ nekk di victimiser Déthié Fall. non mais du moom kese sax am na ñeneen ñuy victimiser. mais mais mais transfert boobu nan lay demee comment euh, comment l'État comment Macky Sall. Ah, li ma la comprendre nga ko da nga ko bañ. nan lañ mën a defee nan mën a imposer plan C bu bu bu bu Pastef moi je veux comprendre. xam nga heure bi c'est le plan A de PASTEF. ok Bassirou c'est le plan B de PASTEF. léegi dans le quota des députés de Sonko il a un plan C qui reste. te loolu kenn xamagul kan la man xaw ma ko yow xamoo ko état bi xamoo ko keneen xamoo ko. mais dama ne Macky Sall moom tànnal na boppam plan C wu Ousmane Sonko en la personne de Déthié Fall. li ngay wax ni Tahirou c'est est-ce que di tooñ Déthié Fall. non non non tooñu ma ko. tooñu ma ko je suis là je je fais mon analyse c'est c'est c'est c'est il est dans l'opposition il est sorti de Rewmi quand Idrissa Seck a rejoint euh, le bloc euh, le, le, bloc, le, le bloc présidentiel il fait son bonhomme de chemin il fait du travail de terrain il travaille il porte des il a porté le combat de Ousmane Sonko c'est-à-dire di def connexion entre Macky Sall ak Déthié Fall est-ce que nekkoo wax ni j'ai pas fait de j'ai j'ai même dit que Déthié courant de ça mais dama ni la déglu ma la expliqué damay mën a xam nga démb da nga mu toog fii wax ay wax damay bëgg tas lu muy wax j'ai le am naa si droit non voilà j'ai pas le droit yéen bi c'est un homme public on peut commenter ses ses propos ou pas wala non dama lay laaj rek j'ai pas droit ok mais ma wax euh, ma olof bu laa làkk bi du français. mën na ko bañ a mën na ko bañ a nekk euh, Déthié Fall mais Tahirou quand même tu es si na <laughs> te es vraiment prétentieux. mais man ma wax benn affaire c'est pas de la prétention de ba uy ma xoolal ma wax benn affaire du prétention de. yàlla xam na ko de. Ah. Ah. mais ñi fi politique ñëpp fii nii. Hmm. ah seen rakk la yaa may dégg. mën nañ ma ëpp âge mën nañ ma ëpp lu nekk mais bu dee science politique mënuñ ma ko ëppale xalaat ci politique mënuñ ma ko ëppale man li ma wax dama ko xam bu baax je sais bien ce que je dis te du ma waxoontu. maintenant nag je peux dire quelque chose qui peut choquer wala qui peut faire à certains mais je la vérité bi ma gëm moom laa wax yàlla xam na li ma wax ni lu ma la te yàlla xam na ne xam naa li ma wax